bëgg fàttali rek moom mooy euh, lépp loo gis day am fi nga xam ne foofu la commencé donc boo tëbee wax rek la situation actuelle peut-être ñi nga xam ne ñoom ñu lay déglu mën nañ bañ a xam exactement lan mooy l'origine des choses mm-hmm. euh, fàttali rek ne TDS dafa nekk euh, une société nationale boo xam ne le président de la République moo ko mettre en place depuis 2017 euh, euh, par la loi euh, 2017 euh, par la loi 2017 euh, comment dirais-je par la loi c'est 2017 tiré 28 du 14 juillet 2017 donc mu nekk boo xam benn société boo xam ne dañ ko teg juste pour ñu assurer li nga xam ne moom mooy la diffusion des contenus audiovisuels à tra par voie numérique à travers les foyers sénégalais. donc bu nga xam ne fépp bu sénégalais nekk. Euh, ci biir Sénégal mu mën a seetaan li nga xam ne moom mooy euh, télé donc umpalewul ne fu mu nekk nii li nga xam ne moom mooy les éditeurs euh, li ñooy def rek moom mooy juste la production donc li nga xam ne aussi moom mooy distribution ak diffusion yi nga xam ne moom mooy seen contenu yi TDS moom la ko état du Sénégal dënk donc loolu bu mu amee depuis décembre passé le président de la République nommé na fi Diouf à la tête de cette direction donc euh, mu nekk jigéen boo xam ne aussi ku nekk ràññee na ko si euh, dans le secteur audiovisuel mu nekk secteur boo xam ne maîtriser na ko xam na ko dund na fa def fa ay preuve ak ay réalité président de la république jox ko ko donc euh, kooku bu mu yegsee si boobu la société aussi lu mu def moom mooy aussi woo ñëpp won leen ni exactement li ñu ma dënk de man kese bien vrai que man la président de la république dënk mais man man kese man maa ko mën a doxal woo ñëpp secteur yëpp chauffeur yeeg euh, section yëpp mu woo leen ne leen ne li ma bugg moom mooy talal naa leen suma loxo ku am xalaat na ko indi ñu liggéey euh, ngir intérêt li nga xam ne moom mooy euh, mission bi nga xam ne moom la ñu jox ngir ñu atteindre ko loolu la def en premier partie bu mu defee loolu mu toog comme dañ ko tàgg bees si boobu la direction mu toog saytu xool li nga xam ne moom mooy dossier yi donc mu fekk fa nag loo xam ne aussi lu doy waar loo xam ne dëppawut ak li nga xam ne moom mooy vision TDS madame waaw loolu loolu laay ñëw waaw bu mu fa ñëwee dafa fekk euh, TDS compte yu fa nekk dañ leen jële c'est-à-dire TDS amatutoon benn xaalis bu fa nekk aussi fekk fa ay dettes yoo xam ne mënoon na ñàkk TDS bi bu ñu bu fa ancienne direction bi nekkee fay li nga xam ne moom mooy ay impôts loolu yëpp mu fekk ko fekk fa des pratique yoo xam ne aussi bokkut ak li nga xam ne moom mooy vision c'est-à-dire TDS am na des recrues yoo xam ne ñu ngi fa duñ liggéey si mu jàpp ne loolu noonu c'est anormal di xool naka la mën a def pour remédier. à cette mais moom nee moom sa du moom sa du liggéey si. non loolu naa si ñëw. donc mu fekk fa loolu fekk fa aussi un système boo xam ne ñu koy wax un système euh, car plan c'est-à-dire ancienne bu fa nekkoon jël euh, des chefs de département ak loo xam ne état du Sénégal par décret da ko arrêté woon cest à mooy le système car plan jox nit ñi ay oto mu jox ñoom ñëpp ay oto ay oto 18 million Euh, euh, chef de département yi directeurs yi ñoom ñëpp am ko aussi ñu si ñu taftal si carburant directeur bi bu euh, directrice générale bu mu ñëwee bees jàpp ne lii nii comme comment dirais société bi mu ngi am ay problèmes financiers li nga xam ne moom mooy car système carplan bi naam ñi fa ñi nga xam ne ñoom ñoo ko amoon amul kenn kum si laal mais dafa ne dañ koy arrêté li nga xam ne aussi moom mooy carburant yi ñu xool ñu ko gën a yelloo ñu jox leen ko mu arrêté carburant bi aussi TDS amutoon système de pointage c'est-à-dire heure bu mu neex nga liggéey si heure bu la neex nga wàcc loolu def ko fa fekk mu ne lii bokkul li nga xam ne day jëmale société bi kanam donc mu ut euh, benn système boo xam ne aussi système de pointage la dinañ mën a saytu ñuy liggéey si di wàcc heure di enregistrer wàcc liggéey heure loolu la def en première partie aussi mu fekk fa benn système bo mu fekk fa benn pratique boo xam ne c'est-à-dire euh, benn système boo xam ne c'est-à-dire du système sax café boo xam ne du doon coûter entreprise bi ay million c'est-à-dire 400 000 par weer boo xam ne dañ ko defoon ci biir bureau yi ak ci benn coin boo xam ne ku mu neex nga naan kafe nu mu la neexee muy coûter entreprise lu mot 400 000 par mois mu ne ah lii comme entreprise bi amul xaalis lii mën na am foo xam ne mën na fa mën nañ ko fa dugal ngir li xam ne moom mooy suñu activité ñuy we donc loolu moom mooy situation bi bu mu ñëwee bu mu ñëwee loolu la def rencontré ñëpp donc li nga xam ne moom moo gën a récent moom mooy li nga xam ne euh, suñu naataango boobu ngay wax toog na fi démb yëkkati fi ay kaddu. seetaan nga émission bi. seetaan naa ko ba mu jeex yi nga xam ne da koy yëkkati mu nekk ay kaddu yoo xam ne dama koy condamné parce que newul lenn loo xam ne euh, dëgg la newul lenn loo xam ne il l'a fait de bonne fois c'est juste pour détruire une personne. si juste pour yàq may ma ma daaneel euh, réputation nit juste en début may annoncé ne kaddu yu mu def noonu. Euh, une plainte dinañ ko déposé si li nga xam ne moom mooy si table procureur euh, parce que euh, c'est de la diffamation c'est aussi par c'est des diffusions de fausses nouvelles yoo xam ne lu muy wax amul lenn lu ko ci leer pour laver li nga xam ne moom mooy honorabilité moom mooy ki nga xam ne moom moy directrice générale bi dina dina ko saisir aussi dina ci def li nga xam ne yoon loolu la